yàlla ci alquran muy wax nii ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna yàlla nee na awliya yi nga xam ne maa leen téye moom leen ànd ak ñoom ci mission bi nee na ñoom mooy ñi nga xam ni amul tiitaange amul ragal amul benn loo xam ne lu ñuy tiit seen diggante ak ñoom la lu dul ñu woote rek ñuy topp ci seen ginnaaw mu ni mooy ñi nga xam ni dañuy topp ci seen ginnaaw ci àdduna ñuy digle ñu topp ci seen ginnaaw àllaaxira ñuy digle waaye nag ñu boole di ñu digal nag lan la ñuy def ba mën a ragal suñu boroom nee na boo ni woon su ma fi fekkoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawaay bu mel nii lay taxaw ci wetam nee na nga yéeg ni boroom xam-xam yaa ngi fi al ulama warasatu anbiya nga yëg ni boroom xam-xam yaa ngi fi te toppoo ci seen gannaaw nee na ñoom ñu taxaw taxawaay yonent yi mat ko sëkk nee di digle li yonent yi doon digle yàlla di leen ko digal muy yar ak njub ak jàng ak dëggu ak xam-xam nee na yow moomee nga nekk ak ñooñee nee na te toppoo leen nee na bu yonent yi ñëwaatoon ci kaw suuf nee na bu ñu digle yi du tax nga topp leen Serigne Cheikh nee na nañu gën a góorgóorlu bu baax nee na li muy tënkee doom mooy nee na mooy juróomi la maamam Cheikhul Khalifa radiyallahu taala anhu waxoon ni nee na wax na barki démb fii ci ziyaaru daara ji muy ziyaaru dairatul mumtadibin nee na mu ni mag ñi jàngalewuñu loo xam ne dañ koy yemale rek ci téere yi déedéet nee na junj la rek jox la rek dër sa rek nga dem nee na dañ lay jàngal jikko yi ba pare nee na ñoom mag ñi dañuy pratiquer ci sa kanam nee na ñu nga gis yow ñuy jëfe nee na ñuy ànd ak yow ca loola nee na bu ñu paree nag bu ñu la tegalee bind bi nag nee na lañu la doon pratiquer dafay daldi yomb ci yow mu ne maam Cheikhul Khalifa Aboubacar Si radiyallahu taala anhu na li mu njëkk a wax mooy sunu diine nee na jullit nee na loo ko taggee wala di ko ko jayee nee te du diine nee yaa ngi koy nax sëriñ Cheikh nee na nañu fonkar sunu diine nee na bis bu nekk dina ko wax bokk yi nee na bu ñu déggee ñu ni xaya ala salaax te mooy mbégte ma wala julli ga jóg leen gaaw ña ngay woote mbégte ma nee na nga war a waajal nag yow xaya ala salaax joojee moom la ñu woote nee na nga war ko jóg waajal ko nee na nga xam ni fi imam bi taxawee ni allahu akbar nee na noddukat bi fi mu taxawee ni buy wooteel yàlla nee na ngir julli gi nee na moom noddukat bi waaw nee na noddukat bi may na la 30 minutes nee na wala 45 minutes nee na pour yow nga mën a waajal waxtu julli bi nee na xam ni ki woote mooy ki nga xam ni mooy ki la bind nee na te li mu la bindee nee na jaamu ko kese moo tax mu woola la ca nee na yow nag bu ñu wootee nga toog nekk ak sa sago ah waxtu wi des nag nee na ba ni ngay mujje yow nee na waxtu wi romb la raw la nee na yàlla nu muy waxal naan nee la yàlla di wax naan fa waylun lil musalliina allazina hum an salaatihim saahuuna allazina hum yuraa'uuna wa yamnauna almauna ba yàlla di tëkku di wax ni way julli ñi way julli ñi fa waylun lil musalliina nee na ba muy wax ni xur wa muy wax ca safara nan ñeel na way julli ñi noonee booba ba mu koy wax nee na ñay tardeel julli moo tax ñuy wax ñay sàggane seen julli nee na waxul ñi nga xam ne déedéet julli ba pare juum ci benn benn ruko wala benn benn kii déedéet nee na ñu taxul muy wax nee na ñay sàggane seen julli ñooñu la yàlla di waxal nee na nii ñu nii nee na gaa yi julli bu yàgg nee na ñu toog di wax rek nee na jëm timis nee na ñun la yàlla di tëkku nee na ak sunu tariqa nee na la ca sëñ Babacar si toftal mooy sunu tariqa nee na tariqa du caaxaan de nee na xaju fi nag ci leeral ko waaye nee na lam cay toftal rek ñetteelu sëñ Babacar si mooy sunu métier. nee na maamam Cheikhul xalifa moo wax ni képp koo xam ni ñeel na la nga am métier mankaana kaana saa irfatin nee na Serigne Babacar Sy ne maa ngi lay dénk ey yow ma ko am bul ko sàggane de fal yuhyiha na nga ko dundal de te bul ko bàyyi abadan nag ba faw nee na nee na dundal ga nga koy dundal ak topp ga nga koy topp nee na moo gën di tuumal yàlla nee na lii président nee na di wax di ko pratiquer di ko wax ak li sëriñ Moustapha jàllale léegi nee na sëriñ Seexul Xalifa wax na ko bu yàgg a yàgg mu ni la mu wax ca ba bayitam ba rek ni man kaana saa irfatin képp koo xam ni am nga métier mu ni métier ma dundal ko fal yox yaa na nga dundal métier ma nee na bu fekkente ne yow métier ma jaay gerte la sax nee na dëggul ca jaay gerte ga nee na dogul ca loola nee yàlla fekk la ca loolee nee na moo gën ko am alalam nee na nga nii nag yow ci sa bopp nga toog rek naan kii de lam am fee la ko sàccee wala lii dey li nga ko gis nii fële la ko jëlee sëriñ seex nee na loolu amul solo nee na yow kay defal ni ñëpp def rek yaakaar ni ñëpp yaakaaree nee na nga mën a am la ñëpp mën a am nag nee na ak lan lu mu ca toftal ñett mu ni ñetteel ba mooy sunu daayira ñeenteel ba mooy sunu daayira mu ni la alquran wax ni waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu sëriñ cheikh nee na yàlla moo wax ci alquran ni lamar la wax dafa digle waxta waxtasimu mooy leen jàpp leen bi xablillahi nee na yéen ñëpp jamian nag mu def ca nag ni indi indi beneen digle ni wala tafaraqu bu leen tàqalikoo nag nee na kon nga xam ni ku tàqalikoo sa mbokku jullit nee na yow da ngaa weddi ndigalu suñu borom tabaraka wa taala nee na mu juróomeele ko nag ca waxam ja mooy sëñ Babacar Sy ni ak sunu yoonu Tiwaawan moom sëriñ Babacar Sy ak la mu dogu ca sunu yoonu Tiwaawan lépp sunu diine sunu tariqa sunu daaira sunu métier mu juróomeelee ko sunu yoonu Tiwaawan ndaat ni moom sëriñ Babacar Sy ya ni ah, xaw ma ci lenn de waaye man Babacar Sy sama juróom yii ku ci sax ba ëllëg yowmal nee na ku gisul Malick nee na dogu naa ni man baaba kër si yow daa gis Malick nee na te man Babacar Sy ku ma ni da gis Malick war ngaa gëm ni daa gis Malick nee na ku ma waxi nii man Babacar Sy ne yow doo gis Malick nee na yow war ngaa jàq ndax ka nga wóolu ka mu moom la te man kër si man la Maodo woolu tey ak ëllëg sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taalaahu wa baraka kon yéen waa daayiratul muqtafina seen yoon seen yóbbala ngoog